leen Showbiz TV ñu ngi ñëwaat ak yeen tay ci 3e numéro de Citizen Aid l'émission qui parle du secourisme tay ñu ngi ñëw waxtaan ak yeen ci benen thème muy ce qu'il faut faire devant une personne qui est inconsciente bala ñu leen di wax ni ñuy taxawoo nit ko xam dafa inconscient té noyewul ak ki nga xam dafa inconscient ba paré di noy dañuy waxtaan ak yeen ci li ñuy wax protection ak alerte kon voilà ñu jublu ci nan lañuy wallo une personne inconsciente que muy nooyi wala mu baña a dañuy wax ci protection ak alerte li ñëk ci processus bi nga xam mom moy secourisme protection la protection moy nga protéger sa bop protéger la victime et puis nga protéger ñi nga xam aussi c'est des victimes potentielles moy ñi rombak yu ci démé nonou protéger sa bopp mooy nga xool environnement bi bu dee am na loo xam ne mën na la gàllankoor protéger victime bi mooy nga xool lu mën a gàllankoor victime bi et nga protéger ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a jàll ci environnement bi victime bi nekk. boo jigee ci protection ñu dem ci alerte alerte mooy nga woote wàllu soit da ngay woote wàllu nit ñi nga xam ne ñoom ñooy romb nit kuy romb mën na la jàppale bu dee yor na téléphone wala nga woote wàllu ci ñi nga xam ne. Nous ñeu secourir la personne les sapeurs pompiers numéro bi au Sénégal c'est le 18 donc euh, balaa ñu une petite démonstration wax lén nan lañuy protéger nan alerter du moins donc alerte bi information ça doit être des informations claires et elle doit être rapide donc pour alerter moy nga woté le 18 Je woté nga ce tour nga joxe sa numéro de téléphone c'est important nga joxe localisation exacte bi nga nekkee manam lieu bi nga xamné ci nga nekk et puis nga wax lan mo xew manam les circonstances nga wax né soit ben la wala ñaar la wala ñu bëri ñom ñoo def malaise wala benen contexte bu mu mënti doon que soit soit accident wala lu mu mënti doon donc pour def démonstration damay jël sama téléphone je compose le 18 et j'appelle donc en premier lieu salam alaikum. Salam salaamaaleykum je Mangi Toudou Abdoulaye Ndiaye Mon numéro c'est le 77 820 30 49 Je suis ici ci Nord Foire ci wetu terrain basket donc dama doon rombo, am nit ku daanu sama je pense qu'il a fait un malaise Il a fait defaguma dara donc si vous regardez ci démonstration bi j'ai def j'ai fait sama tour joxe sama numéro de téléphone ça veut dire que mën nañ ma identifier joxe na localisation exacte bi donc léegi xam nañ ni protéger xam nañ nu alerter nañ jëm ci secourir donc tay dañoo nek en face d'une personne qui est inconsciente ba paré di noy manam ko xamné xalam xelam new fi ba paré mi ngi noy léegi lool li ñëk def moy ñu xam ndax euh, ki teud suñu karam ndax il est conscient ndax mi ngi nooy léegi daf je vais vous montrer les gestes yi nga xam ne moom moo lay permettre nga xam ndax il est conscient ndax il respire la première des choses c'est d'approcher la victime maanaam nga jege ki nga xam ne moom ngay wallu nga téye ci loxo bi wax ak moom parce que boo waxee ak moom si ngay xam ndax dafa conscient wala conscient wul sëñ bi yaa ngi may dégg il répond pas ça veut dire qu'il est inconscient xam nañ il est pas conscient bu ñu paree ci loolu mooy ñu vérifier respiration bi am na ñoo xam ne pouls wax mais c'est un peu compliqué respiration bi da ngay rabaat bopp bi ci ginnaaw nga tijji gémmiñ gi respiration bi liñ koy xoolee lu yomb la nopp lañ koy xolé nga déglu ko ma ngi déglu respiration bi ma ngi koy sentir fi ci sama lex bi en plus ngay xol fi ci dënd bi ak biir bi mouvement respiratoire yi loolu lay c'est une personne qui est inconsciente waaye mi ngi respirer donc loolu que ko xamee ba pare li ñuy njëkk a def te loolu rek la ñu war a mën def mooy li wax position latérale de sécurité en attendant secours yi ñëw parce que protéger nañ alerte nañ donc geste bi ñu mën def devant une personne qui est inconsciente et qui respire c'est la position latérale de sécurité kon ñu ñëw ci descriptif technique yi ñu leen nar a ci image technique bi la position latérale de sécurité ñu rappeler juste que nous ngi koy def une personne boo xam il est inconscient waaye mi ngi respirer kon premier geste bi mooy desserrer ceinture dindi bouton pour permettre que mu gën a nooyi mu deuxième geste est jël loxo droite bi à 90 degrés loolu yëpp ci technique bi la troisième geste main gauche bi la concerné fi bu ngeen ko gisee paume contre paume la def pour ramener ko ci mom lexam à droite ba ma une stabilité ma jël tank bi tank gauche bi yëkkati ko pour mën angle bo day def bascule donc sans effort je naa ko wàcce en position latérale de sécurité la personne inconsciente et qui ne respire pas Il il xam faut perdre connaissance et tout, d'accord kon dinañ un massage cardiaque et insufflation massage cardiaque et insufflation c'est un rythme de 100 euh, compressions par minute Tu as fait 30 massages cardiaques deux insufflation bouche à bouche et dans l'autre, li ci gëna am solo rythmer à 100 battements par minute moy rythme bi da alterner 30 compressions à deux insufflations et li gëna am importance moy continuer ba secours yi parce qu'on a déjà alerté les secours mais nous xamné que bouche à bouche bi si c'est pas possible massage cardiaque yi mën nañ ko def continuer ko ba secours yi kon massage cardiaque bi moo gën important. massage cardiaque nous rappelle juste que nous ngi koy def ci la personne qui est inconsciente waaye qui ne respire pas maanaam avons ñu fexe euh, loxo bi tàllaleeku ci coude bi bañ a créer angle au niveau des coudes coude bi dafa war a tàlleeku carrément kon poids bi yëpp mi ngi nar a reposer ci épaules yi épaules yi nga nar a defee sa poids yëpp pour mën réaliser geste les 30 compressions sinon beau créer un angle au niveau des coudes day tax nga c'est pas les les bras qui travaillent mais c'est les épaules Donc on poids wu euh, yaram yep da koy def épaules ramener les en extension pour pouvoir am effectuer massage cardiaque sans pour autant nga gaaw kon pour récapituler ci suñu thème personne inconsciente wax nañ leen nu ñuy taxawoo nu ñuy commencé taxawu bi maanaam protéger alerter mooy li nga xam ne moom moo njëkk wax nañ leen ci une personne qui est inconsciente et qui respire ki nga xam ne amul il a pas sa conscience waaye mi ngi nooy nan lañ koy taxawoo boobu position latérale de sécurité war nañ leen technique bi et enfin ki c'est une personne inconsciente mais qui ne respire pas la technique technique de massage cardiaque kon di leen jox dig numéro Citizen Aid ci chaîne TV